man na ma ko gisee mooy Macky dafa nekk nit jàmm su wootee jaloo c'est pour indi apaisement jàmm ci réew mi parce que réew day am jàmm pour mu dox réew day am jàmm pour nit ñi nekk ci jàmm nga xëy dem liggéey circulation bi am fluidité ku nekk dox sa soxla mais luy xew ci réew mi musul am donc day faut mu am apaisement moom rek moo mun a wootee jàmm nit ñi ñëw uy si ko opposition bi ñu am nag sens d'apaisement dinañ dem ñoo xamante ne nag ñoom bëgguñu jàmm yëngal réew lañ fi nekkee ñun doxuñ ci loolu ñun apaisement lañu bëgg réew mi am apaisement mu doxal réew mi comme ni mu koy doxalee. mais euh. jàmm si dëgg la la dëgg moo ko lal. ci dëgg rek lañu jàmm dëkk bu amul dëgg bu ñu dawalul dëgg. jàmm nan la fay amee parce que bu fekkee da ngay ñëw euh, di def justice bu sélective jàmm mënul am ci réew mi boo ñëwee di rëkk di di di làq doom di dóor doom jàmm mënul am ci réew mi boo ñëwee fekk ay ay nit yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey journaliste yi moom waroon a dajeel. journaliste moom moom moom laa waroon a dajeel. ki nga doon ki nga doon dajeel su fi nekkoon du ma wax sax dama lay bàyyi ak moom ngeen bëkkante. Ah, mais mais dama dama bëgg rek que. au moins mu intéressant que débat bi intéressant léegi euh, ñoom ñoo ñi mënoo leen nekk bëgg dal journaliste bu wax ngeen tëj chaque jour mu am ku ñu tëj loolu noonu. après boo wootee dialogue lan lan lan lan la ñuy ñëw def ci dialogue. voilà alors que déjà dialogue c'est de un de deux ma daaneel après nga continuer dialogue. Mhm. pour lan la ñuy dialoguer euh, li ñaata yoon lañ fi dialoguer résultat dialogue yooyu anañu est-ce que qu'est-ce qu'on en donc ça va servir à quoi di di woote ay dialogue. bu fekkee ni euh. nit ñi nit ñi li ñuy wax bañu ñuy dialogue mais sincérité bi ñi koy wootee est-ce que euh, wax nga fii journaliste bu ñu wax ñu tey dialogue dafa war a am réew mi fu mu toll. c'est normal ñu dialogue mhm. suñu dialogul euh, baaxul ci réew mi parce que mag yaa ngi toog dañuy seetaan mhm. na ñoo xamante ñoo ngi toog seen néeg mënuñu génn ñoo ngi toog tey seen kurus ñoo ngi ñuy seetaan dafa ruslu il faut dialogue am waxtaan am apaisement am